rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokk yi topp programme xam-xamle mbokk yi ñu miina seetaan dellusiwaat nañu ak yéen ci seen buntu programme xam-xamle comme ni ñu ko baaxoo di defee ci àllarba bu nekk ci waxtu wi ah di leen ñaan rekk ngeen dégloo ñu xol dégloo ñu xel te bañ ñoo dégloo xool di ñaan it ngeen jéggale rëcc-rëcc yi te ngeen xam ne kenn rekk mooy ki mooy yàlla waaye lu ci jub rekk ci ndimbalam la waaye lu ci dëng ci sunu mànkite la ñun doom aadama ñi nga xam ne yàlla dañ ñu bind ci fàtte mbokk yi ñu ngi leen di ndokkeel ñu ngi leen di ziyaara di jiital ca ziyaara ba ki nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp réew mi muy sunu kilifa seex professeur docteur alhaaji yahya ejeje jàmme suñu ko ziyaara ndokkel nañu mboolem kilifa aada yi waaye ziyaar nañ mboolem kilifa aada yi ak mboolem kuy liggéey ci administration ñuy ziyaara it kilifa diine yi ca bopp ba ka ca jiitu di fadilatu cheikh al imam Cerno Aliyun Maaska sunu ko ziyaara rek ziyaara nañ mboolem kilifa diine yi a ima yi ak azatisa yi nekk ci réew mi mbokk yi programme xam-xam le daal programme la boo xam ne day jubale gémmiñam ci lépp loo xam ne gis na ko te mu yaakaar ne war na caa mën a wax moo xam lu jëm ci diine la wala lu jëm ci aadala la wala moo xam lu jëm ci wàllu dëkkuwaay la waaye lu ci mën a nekk rek ah dina ca jubale gémmiñam ngir yéwénal ca mbir mooma suñ ca gisee lenn loo xam ne lu ñu mën a yéwénal la waaye lépp loo xam ne gis nañ ne lu mën a yàq la programme bi dana ca àddu jubale ci gémmiñam ngir lan ngir bëgg a defar euh, su fekkee yéen a ngi doon topp programme bi yéen a ngi doon bàyyi xel programme xam-xamle ñu gis ne rek ñu ngi woon ci bunt boo xam ne bu am solo la ci wàllu diine waaye mu làmboo yi tamit wàllu aada waaye mu làmboo waale wàllu jikko te dinaay faral di wax ne li arab bi wax ne askan woo gis rek ñu di ko tagg wala nit ñi ràññee leen ci jikko ju rafet rek mooy tax ñu ràññee leen waaye jikko ja taxoon ñu ràññee leen nag bu dàqoo wala nekkatu fa wala ñoom jikko wootuñ jikko yooya nit ñi dañ leen di fàtte nit ñi dañ leen di bàyyi mooy li wolof di wax ne jubb wi la fal wala jubb wiñ la doon xàmmee soo ko watee rek ñu fakk la kon mbokk yi gannaaw bu ñu ziara réew mi ziara mbooleem jullit yi ziara mboolem soppay programme xam-xam le dinañu sësaat sunu waxtaan fi ñu yemoon rek ci mbirum julli su ngeen fàttalikoo nag programme bi passé ñu ngi fi toogoon ak sunu kilifa sunu sëriñ Euh, waaye sunu soppee di Seex Alaaji Mouhamad Lamine Ba yàlla dogal na tey mënul teew ci programme bi nekk ci yeneen i yitte ak yeneen i soxla waaye ñu teewal ko fi ñu ngi koy ziar di ko ndokkeel yow mbokk jullit bi nga xam ne yaay doon topp programme xam-xam ne soo bàyyee sa xel programme bi paase ñu ngi la doon toppal ci ñaari ñaari tomb nuxta bi mu ngi tukkee ci aaya bi nga xam ne alquranul karim moo ñu ko jàngal waaye nuxta bi mu ngi tukkee ci euh, salafu saalix mooy waxi nit ñu baax ñi nga xam ne tënk nañ ko euh, euh, ci ay téere waaye dinañu ko dollee leeral di leen wax ne inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli dafay tere def lu bon lu ñaaw lu ñu sib lu nit ñépp jéppi fekkee jullikat nga julli daf la koy tere waaye nooy def ba julli tere la ko ndax yaa ngi julli rekk yaa ngi kàbbaar di jàng faatiya di sëgg di siggi di taaya di ñaan waaye taxul jikko yi ngay ragal dara changé ci taxul lii alxuraan wax ne julli da koy tere nit yow yaa ngi taqoo ay ñaawteef yaa ngi nekk ci jikko yoo xam ne euh, aada bëggut ko diine bëggut ko te yow jullikat nga waaw lu tax bàyyi woo ko waaw lu tax yow mii ngay julli ba pare te julli li muy jëriñ jëriñut la ko ci tomb bi ci lañuy yaatal balaa ñu leen indil farata yi nga xam ne moo tàbbi ci biir julli ak sart yi waral julli ak sart yi wéral julli su ko defee nga bàyyi sa xel bu baax alquran dafa wax ne inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli dafay tere lu bon waaye dafay digle lu baax julli day tax nga jëm ci lu baax waaye muy tere nga dugg ci lu bon ak lu nu sib julli daf la koy tere waaye nu la koy julli di tere ni la koy julli di tere mooy aaya bi nga xam ne alquran mu ngi ñu koy junju ne innama almuminuuna ladina ida dukirat ayatullahi wa jillat qulubuhum ida dukirat innama almuminuuna ida dukira ayatullahi wa jillat xulubuhum wa iza tulliyat alayhi ayatuna wa zaadatu imaaman imaana ñu jéggalu alquran day wax ne innama almuminuuna ida dukira allah wa jillat xulubuhum wa iza tulliyat alayhi ayatuna wa zaadatu imaanan wa ala rabbihim yatawakkaluun mbokk jullit bi alquran nee na balaa ngay nekk jullit piir da ngay nekk jullit gëm yàlla mooy dangay nekk muslim bala ngay mën a am julli gu lay tere lu bon di la digal baax da nekk muslim balaa ngay nekk jullit bu julli di tere lu bon ak di la digal lu baax di la génne ci lu lëndëm di la dugal ci leer yow jullit bi dangay fexe nga ragal yàlla njëkk da ngay fexe ba bu turu yàlla jibee loo jàppoon fàtte nga ko lu dul yàlla rek dootoo ko xelaat waaye lu jëmul ci yàlla doo ci am yitte sa xol bi day tooy suñu tuddee yàlla sa xol bi day tooy boo déggee alxuraan sa xol bi day tooy bu ñu ne waxtu julli jot na sa yitte day day bari dangay ngay farlu da gis ne bu ñu ne xapaas bu ñu ne two o'clock la julli xapaas tu rek xapaas xapaas wan rek nga gis boroom di waaj wajaay wu rëy woo xam ne dangay foog ne day tukki dangay foog ne day teewee ji benn mitin boo xam ne ñi gën a fort ci àdduna bi président yi ak buur yi ñoo fay dajee dangay foog ne waajooju fa la jëm moo tax alxuraan di ñu wax ne xuzu zinatakum inda kulli masjidin nangeen taaru man daal ab jullit lama ca xam wala ab jullit lama yaakaaroon ne moom lay mel mooy mbubb yére bi mu gën a fonk yére bi gën a baax ci yéreem yi bu tisbaar jotee dina jàpp bu fekkee mu sangu walla mu wara a sangu wala mu tilim dina dem mu jaral ko mu sangu ba yaramam set lool rafet lool mu daldi di génne yére bi mu am yaakaar bi mu gën a fonk ci yéreem mu daal koy sol daldi di daldi defaru seetu xool jëmmam yëg ne moom mii kat su dee ci taaru taarulu yegg na ci taar foo xam ne fuy nit di mën a teew ci mbooloo mu ñëpp di teew war na faa mën a teew ku muy jàkkaarloot mooy boromam day yëg ne day jàkkaarloo ji ak boromam day yëg ne ki ko bind di yàlla moom lay déeyaaleet mu sellal ruux